mission de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla. waaw asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi naan yéen ñëpp yéen ñi seetaan maa leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne leen jëm di abonné. asalaamaaleykum mbokki Farokh TV ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen ziar. mbokki téléspectateurs yi di seetaan seen chaîne TV Farokh TV. ñu leen di sant di leen nuyu di leen gërëm di leen wax ni ngeen continuer seetaan page bi. te Fane tuuti ñu ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal jàmm di leen félicité si abonnement yi macha allah gis nañ ko ba waaye yëpp ñu ngi félicité aussi. waaw jour bi ñu ngi def leen ni man ngeen abonné si si seen sama si ngeen di bësaale si proche bi. waaw ndax li euh, ngeen wax léegi ngeen tëj ngeen siiw proche bi parce que macha allah. Mhm. loo importance dama moo ci ndaw. li ñu jëmale réew mi kanam la. pour mille mille mille jeunes yi ñu am euh, ci page bi léegi ñu leen di naan mille jeunes yooyu dina yàlla yónnante bi yéen la. lépp ko waral. lépp dina ko waral. ñu gën a jàpp ci combat la xam ne ñu door door ko ak yéen. waaw di leen félicité bu baax a baax nag ci abonnement yi gis nañ lépp am na solo lool. parce que yéen yéen a nekk ginnaaw Sokku Farokh TV yéen ñii téléspectateurs yi yéen ñii ñuy seetaan ñu fara ba ci do di ñaan rek di seetaan page di ko saani si cloche bi waaw insha allahu rabbi soo fara ci yi bëgg nañu préparé yeneen vidéo ñu gën a neex yi ñu leen dëgg yàlla ñu leen di félicité bu baax a baax di leen wax ngeen gën a jàpp bu baax a baax rek ndax bu ngeen jàppee incha allah dina baax ndax am na yeneen vidéo yi aussi ñu ñaanal ki nga xel ba mu am lu ëpp loolu daal. loolu si àll bi waaye yàlla defal ko jàmm. éducation yi neex na macha allah boo ñu koy doon jàppale ndax Farokh moom ca kaw ca kanam mhm. ñu ngi waaye YouTube ñu koy félicité euh, grâce à vous. ki ko initié nekk suñu mbokk nekk wàllu xarala ji Sénégal. Mhm. di la wax ne ngeen suivre ko yokk abonné yi. waaw yaa ngi gën a xam quoi chaîne bi gën ci kaw. rafetlu tamit euh, abonné yu bëri yi tey seen bi mën a dem ba waa YouTube di ko di ko félicité waaw ah, loolu moom ñu euh, ñu ngi leen di gën a ñaaxal gën seen abonné euh, ay yeneen yeneen yeneen yeneen la ndax ngeen jàpp ci aimé bi partagé bi ñu leen di félicité bu baax a baax merci. yeneen vidéo yu gën a intéressant yu nekk nii yoo xamante ne nii dina leen yees diine ak jamono. ngeen gën a gis yu gën a neex incha allah di ngeen gën a gis yu gën a neex. amiin waay dafa ko toog waa ji baax na quoi. amiin macha allah bu baax a baax. amoon nañu programme bi incha allah baax wax ca kaw ca kanam merci.